bisimilah asalaamaaleykum. wa barakaatu. dara ñu bamtuwaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. lillahi ma axada wa lillahi ma abqa. alhamdulilah alladi laa yuxmadu fi makruhin siwaa. ñaan yàlla bu baax a baax. yal na yàlla dëgëral leen. yal na yàlla dëgëral leen. yal na yàlla may. ñi nga xam ne gis nañu ñun ñëpp gis nañu ko ci Cheikh. ñu gis ko muy seen baay. muy borom itte boo xam ne yëkkati rek moo doon moo doon moo doon risaala yëkkati nit yëkkati tabax yëkkati euh, dara yi ci def ay taxawaayam yoo xam ne daal ñëpp yëg nañ ko donc kon moom xam na responsabilité am mooy dooli waaye responsabilité am du nit dem fàddu jiw ñu fàddu taxaw risaalam boobu kanam la war a Euh, dem na man maa leen gën a ñàkk yéen ndax yéen ba yéen a ngi am fu mu wax bàyyi ba léegi ah, ma fi doon sama bàyyi moo fi xam ngeen ko ndax toujours bu ñëwee ma ne ko di di rek ma def man aw ma benn kàddu loo wax rek loolu laay def foo joxoon foofu laay jëm parce que xam naa ne a defal bàyyi gannaaw euh, bàyyi nekk ko fii wala akul kabiru huwal ëpp moo ma. nangul la ko noonu toppale ko noonu loo wax noonu la loo santaane noonu la du ma yëkkati sama kàddu mukk ko sa kaw du ma mer dara du ma tawat dara du ma jàmbat dara loo tegal rek noonu la nangu naa ko ala rasi walaay loolu moo doon sama mu mu xam loolu itam respecté ko bu baax a baax bu ma gisut wàññiwul da wàññiwul dara ci moom ndax xam na ki mu ñàkk gis mooy ki muy gis rek benn la ci moom bu ko gisee itam loolu rek la benn baat boobu moo am moom rek moo nekk ci moom léegi nag risaala bi fi nekk nii mooy ne yàlla ñu jox génération bu bi risaala boo xam ne war nañ koo xam war nañ koo teew ak njàmbaarte war nañ koo teew ak ngóor rek war nañ koo teew ak yar yu kawe ak jikko yu kawe ak jikko yu baax ndax yooyu rek moo mun nekk risaala boo xam ne mooy yoon woo xam ne ci la risaala buy jëriñ ñi foofu lay tegu booy jëriñ nit ñi te amoo yar dafa dara booy jëriñ nit ñi te tegoo ko ci kaw xam-xam da booy jëriñ nit ñi teg ko ci man maa ko am damay ko tiitaloo da ngay yàq mais jëriñu ñi rek te yàlla tax ak dëgg bi nga xam ne yàlla moo ñu ko sant istaamalakum fiiha dundal addi dundal su addina bi waaye bala ngaa dundal addina bi dundal sa diggante ak sa bopp ak sa diggante ku ci jàpp ñun ñëpp Cheikh dem na waaye dañuy bàyyi beneen nouvelle génération boo xam ne ñu ngi màggaat génération boo xam ne ñu ngi yaakaar ñu am ñu am ñu am yëg ñu am yëg ci seen risaala bi ñu am yëpp xam seen maanaa risaala bi seen maanaa risaala bi bu xëccoo àddina du tiitaloo àddina seen maanaa risaala bi mooy naka tabaxee nit koo xam ne fu mu taxaw ci àdduna rek dañu xam ne nit a ngi nii comme ni Cheikh Ibrahima meloon fu mu taxaw ci àddina nee dañ koo jàpp sëriñ waaye moom jàppatul keneen sëriñ ah, bon bàyyam tabax na ko waaye moom tamit tabax na ñeneen ñoo xam ne fu ñu ko présenté rek dañu xam ne kii ku nit tabax la kon nag nit kooku nit kooku moom lañ soxla ci yéen nit kooku moom la ñu ñaan yàlla yàlla génn ko ci yéen ndax risala bi ngeen amee risala bu kawe la risala mondial ndax foo dem ci àddina bi fekk ko fa foo dem ci àddina bi tekk fa njëyitu Cheikh Baye ma tey benn waaye mooy téléphoné ci asiatique ci lépp asiatique yi ah Philippines wax ne moom tawee la seen nangam ak nangam boo xam nga risala boobu nangut donc bon ñu dëkk Médina sës ay setaki doom xew loolu la leen yàlla dénk lan la bu koy téye bu ñu ko téye tiitalu bu ñu ko téye maa ko mën bu ñu ko téye maay doon diw dañ koy téye parce que man soldat laa ci biir risaala boobu ah ak nag loo xam ne dina nekk jikkooy soldat jikkooy soldat ah mooy am fit jikkooy soldat mooy dama dugg ci guerre boo xam ne mun naa am ma des ca mun naa am ma génn ci bu ma ci desee laa jëm tout suite bu ma ci gañee alhamdulilah sama traite bi nañ tasaare ñu ngi tasaare yal na yàlla dundal ñu ci loolu yëpp yal na yàlla taxaw ñu ci loolu yëpp yal na yàlla taxaw leen ngeen taxaw seen kër baay taxawaay bu dëggu la mag ak ay rakk ngeen ay mag ñi yërëm rakk yi rakk yi topp mag ñi te bu kenn tiitalu ci kaw kenn bu kenn foog am na lu ñu jiitoon ramuñ ci dara yéen ñëpp ñoo bokk yëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp a ko bokk ah yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla gërëm leen ni ma taxawoon ak seen papa dara soppeeku ci ah bu ngeen gisee ne sama papa ji war nañ ko sant dara bu leen dellu gannaaw sant leen ma ko ah sant leen ma ko dinaa ci taxaw sama kéem kattan bu ma ko mënee def muy noonu su ma ko mënta def itam dinaa des sama kéem kattan ah bu leen dellu gannaaw ci dara eh, eh, eh, wax wax wax na ko wax leen na ko parce que loolu laa jaayante woon ak góor gi te xam na ko te yéen tamit xam ngeen ko ah kon nag loolu bu mu dellu gannaaw ñun ñëpp nañ ci taxaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ñu ngi ànd ak yéen ci seen mbooleem taxawaay waaye nay jub rek te leer te ànd ak yar te ànd ak teggin loolu rek mooy wax ah yal yàlla may ñu ko ñun ñëpp. alhamdulilah. Ah, jóge waaye di am gan président mun naa am ñu fi sant ñoom bi ñu ngi tawat ne mbir mi dañoo amul discipline ah moo tax ñàkk discipline boobu moo tax nag waaj def ñaari yoon ñëwul parce que néew na amul discipline te feebar bi feebar bu tasaaroo la donc bon nag buñ nangu comme waa Mérina comme jeunes yi yu bees yi buñ nangu ñu ñuy jox loo xam ne dafay manqué Mérina parce que mbir na amul discipline ñaaw na te yéen moom mbir na te ñàkk discipline yëpp ci yéen rek la bàyyee ko yéen xale yi euh, bu yooyu foofu rek ñàkk discipline foofu rek la ko waaye bu nekk ku nekk boo xam ne foo mënti nekk rek mbir nga taxawal yaa nekk ci gannaaw mbooloo ma mais yaay mbir na ak ki nekk kanam ya mooy mbir rek dañ def loo xam ne dinañ ko nangu discipline yi nag laaj na fi bu ñuy am gan yi xew yëpp xam ngeen ko takk masque def euh, jotaay boobu ñu xam ne jàngale nañ ko ne nañ ko def soriwante yooyu yëpp nañ ko def pour màggal suñu gan ak pour ñu ne la ko ak pour itam ne li ngeen wax ci ñun du dëgg ñun am nañ discipline mm. ah nañ jéem na noonu bu baax a ñu ci seen loxo nag ñu ngi ci seen loxo. yàlla na leen yàlla dimbali ngeen def. salaamaaleykum.